internautes qui nous suivent à travers Dakar Plus Univers Info ak euh, DS Média ñu ngi ànd ak ki nga xamante nii kenn dootu ko présenté ci réew mi moom mooy Gallo euh, PDG Univers Info ñu bàyyi la nga nuyu internautes yi lay seetaan. Asiba maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu Kalilou. Mm-hmm. waaye aussi di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan suñu différentes plateformes. Mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax parce que gis nañ ni ñuy supporter ak ni ñuy jàppale. Euh, ñu nekk si xeexoo bu mag moom mooy Magal ñu am ci naqar bu tiis boo xamante ne tey jii nii euh, jàpp naa ne laal na la parce que ki nga xamante ne moom mooy Aziz balaa nekkoon danseur nekkoon sa xarit génn àdduna ci ay anam yu ñaaw lan moo nekkoon sa réaction bi ñu la annoncé décès bi. bon xanaa di tàmbalee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm-hmm. di delloowaat suñu lépp suñu borom mm-hmm. ndax lépp moom la. waaye di ñaanal Aziz Abdou Aziz Ba yàlla na ko yàlla yërëm xaare aljana yàlla oyofal suuf ci kawam yaatal bàmmeeram leeral ko yërëm ko yërëm ñëpp ñu fay fekk ak képp ku fay fekk metti na metti na ma trop parce que sama relation ak Aziz lu yàgg la te lu sincère la maanaam du lu ñuy médiatiser wala lu ñuy wanewu wala lu ñuy demoo mais yàlla moo ñu boole mm. ñu bokk ay qualité yu bari yoo xamante ni gisoon naa ko ci moom Euh, mu sori si trop moo tax affaire bi affaire bi laal na ma laal na ma trop. naka nga yëgee dese euh, Aziz. naka lañ ko annoncé. ni ma ko yëgee genre dama doon dañ doon dem Touba parce que jamono ji ku ne xam na ni. Mm. màggalu Touba moom mooy actualité te ñun journaliste lépp luy actualité suñu devoir la ñun ñu wan ko ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi ñu xam li xew ci réew mi. moo tax ñu teeloon a euh, am na équipe bu ñu jiitu woon sax mais j'avais jugé nécessaire pour équipe yi bañ a sonn trop ma ñëw apporter sama pierre à l'édifice ak équipe bi ñeneen ñi ma àndaloon bi ma yeneen collègues yi parce que j'étais avec Khalidou euh, Asiba xalifa euh, ak El Hadj Sénégal Buzz 221 mm-hmm. en cours de route vers les coups de vingt trois heures minuit yooy noonu la ma sama benn collègue woo sœur di sama sœur di bàjjan ma koy nuyu au passage bi ma woowee comme que maa ngi doon dawal je voulais pas décrocher mais ni ma gisee muy insister ma ni peut-être que am na lu xew xaaral ma jël ko mais dama ko naroon jël ni ko baa ngi dawal après su ma dinaa la woo mais dama jël rek mu ni ma allo man ko am mu ni ma ko ci ma ni ko waaw bàjjan ça va mu ni ma yëg nga li xew ma ni ko li xew lan moo xew mu ni ma Aziz Dabala laa dégg ni dafa dee ma ne ko Aziz Dabala mi ma xam non loolu mënul nekk mu ne ma xaaral ma laajte waat mhm. bi mu coupé ma ne non bàjjan mii li muy wax nii est-ce que am na si météo est-ce que du vidéo yi gars yi di dugal ci kii di wax ay RIP mhm. waaw euh, après ci la gars yi vérifié ñu ni dëgg la mhm. man leen ak lu mu mënti doon de xanaa feebar moom mënu ko rey parce que bi biñ déggantee yàggul biñ gisantee yàggul soit dafay def choc man choc sax laa doon xalaat parce que affaire bii lii yëfi animosité bii gëw ma yaakaaruma woon ni dina am si suñu suñu réew quoi mm. après bi gars yi vérifié ñu ne non nee na dañ ko fekk ci appartement am ray ko mm. quelque temps après ñu ne ñu du moom kese jarbaatam aussi rayaale nañ ko muy muy kii waali je sais pas moom aussi ñu koy ñaanal bu baax mm. affaire bi nag traumatisé ma def ma choc ci yoon bi xaw ma li may dawal lan bi ma ñibbisee sama bëti démb yi moom laa continuer enchaîner ko parce que maa ngi xalaat di xalaat scène bi comment ça se passe kan la mën a amal problème ba mu ko war a mën def yi ah, nan la nit ñi def ba dugg ci appartement am mm. toogaat tuuti ñu ni ñu depuis dimanche lañ de mm. affaire bi nag di ma travailler sonal ma trop mm. mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dese yàgg na maa jàpp mais bii da ci gën a da ci gën a raw da ci gën a raw ndax anam bi mu amee dafa dafa dafa dafa ñaaw dafa metti ah j'imagine qu'ils ont souffert avant de mourir donc euh, noonu laa yëgee noonu laa yëgee information bi. sa relation ak euh, Aziz Dabala fan la commencé. <laughs> Aziz ñi nga xamante depuis euh, depuis 2013 2014 yooyu. Mm-hmm. côté yooyu lañ xamante yàlla di dox di dox di dox bañ bokk nekkandoo Pikini parce que qu'il fut un temps euh, moom nekkoon na acteur bi Pikini production. mooy nuyu waale DG bi xam naa après dinaa ko woo sax pour ay témoignages muy tonton Alioune di suñu papa di suñu tonton. Mm-hmm. donc moom foofu la nekkoon nekk product nekk fa acteur tonton Alioune nekk producteur bi ñu dajewaat fa. Euh, pendant ce temps man maa ngi euh, def stage euh, biir Pikine en même temps di yor communication wu Pama Dieng ma koy nuyu aussi au passage moom ku ne xam na relation am ak Aziz. Mm-hmm. donc jamono yooyu nag lañ lañ xamante nag commencé di. miinante di demlante dikkalante et tout mu yab ma sonal ma moom da daan wax ni man maa ko yab ko sonal mais moom tamit daf maa sonaloon trop mm. donc mu nekk nit ku oyof nit ku simple nit ku bëgg lu baax nit koo xamante ni du dugg si dara ta duma ma laajte. Mm-hmm. Aziz des fois dañ daan toog sax gëj a déggante mais heure bu amee business bu mu war a dugg wala benn contrat wala dara mm. dina yëkkati téléphone am wala mu ñëw ba sama bureau woo ma mm. waxtaan si ak man. waaw te sama xaritoo ak moom da ko tax yàgg a taxaw di ko revendiquer fu nekk mm-hmm. te bari woon nañ mais man moom dafa ma daan seppi di wax ni man xaritam laa mm-hmm. waaw te loolu dafa daan témoigner sax ci interview yu ñu koy jël boo gisee ak suñu photo yu yàgg yi aussi day prouver relation bi nga xamante ni amoon nañ ko mm-hmm. euh, donc ba ci projet bi nga xamante ni génne woon na ko muy single boobu euh, Daga Ndiaye aussi di sama frère moom moo ko moo ko defaloon morceau boobu léegi dàgga ñëw sama kër seet si ma ni ma man de booy dama amoon benn projet ak Aziz te bu ma sañoon nga jàpp si hmm. man ko ban projet la mu ne ma dama ko bëgg a dugal ci affaire u taasu et tout su ma sañoon nga def demaleel ma ko ci communication euh, après nag ci la ko wax Aziz Aziz Aziz moo ko proposé woon sax aska mu wax ci ak man après ci la ma Aziz woo ne ma bëgguma la woon a teel a woo gis ni ma xamee yoon dama bëggoon bàyyi dàgga mi nga xamante ni moom moo yor mu wala boppam mais dinañ fa ñëw tel jour jour bi jot mu ñëw sama bureau ñu toog ñu waxtaan ñu wan ma projet bi et tout man tamit en tant que frère en tant que xaritam mënuma lu dul jàppale ko et ci laa woo samay quelques euh, partenaires yoo xamante ne dama daan liggéey ak ñoom et ci affaire streaming xam nga foofu la musique toll ak yooyu yu bees yi affaire jumtukaay yu bees yi ma mettre ko en rapport ak Grand Tafa ma koy nuyu aussi Grand Tafa ñëw bureau ma joxaat leen rendez-vous ñu ñëw toog Grand Tafa indi contrat bi ñu saytu contrat bi sama bureau lañ ko saytoo ma leeral ko Aziz ba mu leer Aziz soog donc euh, après ci la ko dugal ay Spotify iTunes yu bari le son fu loo xam ne artistes yu bari liggéey nañ vingt ans amuñu ko man j'ai réalisé sa ak Aziz et mm. euh, mu def ci benn exploit bu doy waar te loolu aussi il a été reconnaissant même si xaaruma ci dërëm xaaruma ci woon xaalis xaaruma ci dara dama ko doon def pour jàppale ko ci carrière am et tout euh, te depuis lors aussi suñu discussion bu mujj bi boo ko gisee mm. donc ci ci ci même chose la parce que bu bu bu buy def dara ci liggéeyam tout le temps daf may daf may woo daf may woo di ma laaj xalaatam lii tout récemment c'était benn invitation bu ñu ko defoon mm-hmm. mu raté invitation bi léegi nag mu jaaxle di ma laaj lan quest jour que je dois faire ma ne ko boo boo la joxee invitation nga raté ko bul bul bañ a woo nit ki wool nit ki euh, gis nga wool nit ki nga nga nga nga nga nga vérifier nga wax ak moom ni ko carrément dama amoon empêchement moo tax defuma ko mais bul toog rek mu ni ma dama rus ma ne ko mais woo ko nga expliqué ko mu ni ma wax nga dëgg te dafa ku ñime dëgg la ba pare nag ñime ku ko wax dëgg hmm. loolu moo tax Aziz carrière li mu ci juum du bari parce que day discuter ak ay nitam donc après ci la ma wax loolu euh, ci ci ci ci ni ma dinaa ko après ci la ko sama ñoom booy ñoom jëli ñoom faa hmm. ñu def interview ba pare mu message at ma euh, di ma di ma wax que ni affaire bi nice na ñu bare nga koy apprécier et tout gars donc sama nit la quoi Aziz. ko quoi. sama sama ci teg sama sama xarit la sama xarit la te li may wax nii. ñu eh, bari mën nañ ko seede aussi seen diggante parce que Aziz nitu nit ñi la. Mhm. foo ko fekk day kaf day ree eh, bëggul kenn di nekk ci stress. Mhm. donc nekk na loo xamante ni daal métti na ma métti na ma ba fa métti yam. di ko ñaanal yàlla rek loolu rek lañ ci mën mënatuñ ci dara ça fait mal au cœur boo dee xalaat boo xalaatee rek après da ngay sonn parce que li ngeen daan partager li ngeen daan wax nekkoon nit bu am ambition boo xamante ni doo comprendre mm-hmm. euh, ñu gis ni rey nañ ko rey bu doy depuis dimanche est que jàppoon na dafa amoon ay contentieux wala ay euh, ay ay de compte yoo xamante ne daf ko amoon ak ñeneen moo tax mm-hmm. ñu def ko jëf ñaaw ji bon ah xam nga nit moom xam kenn xamul fi ne nii moom li ñuy wax rek allahu ahlam yàlla rek moo xam yàlla rek rek rek rek moo xam jamono ci nii comme kenn xamul kenn comprendre te ñun ñëpp bëgg nañ lu leer suñu bopp yi moo tax je suis très mal placé pour di wax que ni règlement de compte la wala du règlement de compte mais en tout cas li ma xam mooy Aziz nekk na nit boo xamante ni buggul sax ku ko mere soo ko meree dina def la tout ba fexe ngeen juboo Aziz fu mu nekk da ngay kaf da ngay reetaan donc kooku kan lay amal problème ba muy def règlement de compte mm. la dernière fois rek noonu noonu la noonu ko meree Aziz buggul ku ko meree donc man loolu mënuma gëm ni ay affaire de règlement de compte wala mu am ak nit problème wala jafe-jafe. Euh, décès bi jur ay polémique yu bëri nag parce que bi ñu découvrir corps bi ñu bëri génn nañ def ay interview ñi naan samedi dégg nañ ay yuuxu ba ñenn ñi di taal seen live di accuser ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté moom mooy Nabou Leye euh, ñu su euh, Soukayna série Emprise moom mi nga xamante ne moom moo jege woon loolu ki nga xamante ne moom mooy Aziz ñu nekkoon yenandoo tout la journée euh, ci dimanche bi nii yan yan yan yan yan kàddu ngay mën a yëkkati ci wax ci loolu. asiba man loolu duma ci sori. Hmm. parce que ñàkk xam weesuwul gis nga nit boo xamul dangay noppi. Hmm. réseau bi nag moom nekk na kër goo xam ne amul porte fu waaye duggee dugg hmm. mais lu nekk ci ay loxo. enquêteurs yi ñu war ci def enquête yow mi juge fële fekke woo xamooti moom bi si tudd turu nit loolu ñàkk a xam weesuwu ko man je vais pas citer de nom du ma tudd kenn te man Nabou ni ma mel ak Aziz noonu laa mel ak moom mm-hmm. nabulay sukkee na ki nga sukkee na moom sama xarit la mm-hmm. sama mbokku taalibe la mook Aziz man mën naa seere seen diggante lu bari mm-hmm. moom fi mu féete Aziz man xam naa ni comme Aziz ku mu bokkal ndey ak baay ndax Nabou Leye mënul sax seetaan gis ku am ak problème Aziz bu amee nit problème maanaam lu yendu ci Aziz day fanaan ci Nabou lu fanaan ci Nabou day yendu ci Aziz ñoom ñaar noonu la complicité bi noonu lay demee te bu gisee ni diw am na problème ak Aziz di xaritu Aziz dina def la tout ba ngeen juboo te tout récemment rek dal na ma sama diggante moom parce que à un moment donné maak Aziz amoon nañ benn différent bu am et tout ci wàllu liggéey du lu garaaw na quoi ay mbirum werante et tout parce que artiste dafa neqaree canaliser et tout mm-hmm. mais boo toogee seetaan ko après dina revenir ci la ko expliqué Nabou Nabou ni ko yow yaa tooñ de mais dinaa wax ak Gallo après ci la ñëw ba ci man woo ma fexe ba ñu déggante mm. mu expliqué ma affaire bi ni man nag man su ma sañoon Aziz nga koy comprendre et tout parce que ñun artistes moom affaire bi ma ne ko noo man amu amu problème yooyu et tout dama ko doon bàyyi rek ba mu ba mu gisul boppam reconnaître que ni euh, nii la demee et après ñu avancé te noonu la ko yàgg di taxawoo lu mu lu muy dugg Aziz dina ko yëg te euh, man li ma paamaa wax di sama frère moom aussi nekk euh, xaritu Euh, Aziz bu baax a baax mm. elle ma il m'a que Nabou moo ko wax ni dafa toog trois jours déggul Aziz ñu koy woo jotu ko mu ne lii du di ko Aziz nee na ma Nabou moom moo wooyu menuisier bi dajji buntu kër mm. donc xam nga kon kooku moo tax ànd nay sincère mm. xaritoo nay sincère parce que loolu bokk na ci sincérité mm-hmm. euh, donc nag man fi ne nii mënuma ci avancer parce que enquête bi ma ngi ci ay loxoy yoon du ma ni diw la du ma ni di diw parce mm-hmm. que affaire bi sew na xeetu sew boo xamante ni loo ciy wax nay leer ëllëg te man bëgguma di tooñ bëgguma di wax lu ma warul damaa bëgg lépp lu ma yëkkati di ko wax muy nekk loo xam ne leer na ma pour sama diggante ak sama borom mm. mais li ma ci xam nga xam ko mooy ñoom ñaar yàlla da leen a boole ñu nekk ay xarit mm. Aziz bëgg Nabou Nabou bëgg Aziz am na benn concert boo xam dañ ko amoon si début Pama concert Seynour Tall mm. am Aziz amoon fa problème nar fa xeex Nabou moom moo ñëw jël xeex bi yaa ngi fàttali yaa ngi dégg démb Kalidou bi ko bi ma ko Pama di fàttali Nabou Leye moo ñëw jël xeex bi xeex ko mm-hmm. xam nga loolu foofu fa la bëgg yam mm-hmm. donc moo tax bëgguma ci sori te bëgguma sax di xalaat affaire yu bon yooyu vraiment bëgguma man dama bëgg di positiver positiviser les les les les choses mm-hmm. te bëgg naa aussi nit ñi di yam fi ñu war a yam parce que place yàlla nit mënu faa toog chaque jour moo wax leen ko enquêteurs yi ñu ngi liggéey nañu toog xaar résultat yi te xam naa ne très bientôt incha allah dinañu indi lu leer loo xamante ni au moins dina mën a dalal ñun suñu xel yi ndax c'est une perte énorme Aziz dafa nekkoon responsable mm. Aziz yor kër yaayam yaakaar ko famille am yaakaar ko asis liggéey rek la gëmoon mm-hmm. day ñëw liggéey nga jox ko cachet mu séddalawaat ko booy des fois dam karaan jox kase man parce que yàgg nañ bokk ay projet ñu ciy liggéey ci xamee ñaar ci Pama tout mais dama koy jox cachet bi ci booy yi la koy séddalawaat moom du am du am kii parce que booy da daan wax ni man booy dañ ma leen a dénk booy dañoo am yaakaar ci man donc man bon boo leen ma joxul jox leen booy même bala ngeen a dem déposer leen booy et tout xam nga di ci xar tànk tubéyam donc kooku amoon na noonu la njëriñ culture sénégalaise léegi kooku nga rey ko perte la mhm. donc on a on a on a le li nga xamante ne moom mooy justice mhm. ci nu mu gën a gaawee parce que ñi def lii yoon daf leen a war a teg ay daan yu métti métti métti pour la prochaine fois keneen ku jéem a jéem a xalaat def lii mhm. yoon dal sa kaw mu nekk loo xamante ne lu fréquent la fii ci Sénégal. Mhm. parce que ay affaire u rey dañ ko daan déggee ci yeneen dëkk yi bu dul Sénégal mais mhm. léegi un deux trois nga dégg diw jam na diw diw rey na diw tey rek euh, fii nga xamante ne moom mooy Touba dégg nañ fi ne benn booy dañ ko jam ci loo xamante ne xam naa ne amaana boo gëstoo ba ci biir lu banaan lay nekk lan ngay wax gouvernement bi ak lan nga leen di dénk balaa ñuy tëj émission bi. gouvernement bi li ma leen di dénk Asiba ñoom ñoo ma ko gën a xam parce que ñoom nekk ñoo fi nekkandoo ak ñoom nekk société bi. ñoom ñu gis li nga xamante ne moom la Sénégal manqué ñu xeex a xeex a xeex ba jël réew mi mm. te loolu problème insécurité daf cee bokk mm. donc man maa ngi leen di woo ci loolu maanaam ñu ñu taxaw ci sécurité bi ni ñuy reyee nit ñi yomb na ñaaw na metti na mm. fekk nit ba sa biir appartement rey ko fan la nit di amee sécurité kon ñi nekk ci mbedd mi moom ci lan lañ nekk donc nañ leen di ñaan ñu taxaw ci sécurité bi ba pare ñuy saytu xale yi parce am na loo xamante ni nit def ko doo lucide pour def ko te gis nañ ni jumtukaay yi léegi dootul sàngara rek wala drogue rek wala wala yàmbaa rek am na si yu bari yoo xamante ni mu ngi ci réew mi xale yaa ngi koy jël mu ngi leen di perteloo connaissance mu ngi leen di defloo ay yëf yoo xamante ni kenn xamu yëfu nit la wala yëfu mala la te une jeunesse doit être saine il faut que ñuy saytu xale yi di xool liy dugg ci réew mi ak liy génn ci réew mi c'est important ndax am na yoo xam ne boo koy jël doo mën a def yëfi nit yëfi mala rek ngay def te loolu xale yi la ñu war a protéger pour éviter mu bañ a dugg ci kër yi bañ a dugg ci dëkk bi ba pare ñu leen di conscientiser di wax ak ñoom mm-hmm. ndax ñoom pour ñoom fi mu ne nii dëkk bi bu dee wàcc ñoom ñoo koy téye alors que ñu ngi ci ay erreurs yoo xamante ni bul comprendre te après lañ koy regretter mm-hmm. donc état bi man ci ñaar yooyu noonu laa leen di gën a woo ñu gën ci def liggéey boo xamante ni buñ ko gisee dina xam ne liggéey bii kat état bi yokk na loxoom mm-hmm. loolu soxla nañ ko trop ci réew mi surtout sécurité. non dernier moom moom du ma ko génne parce que man damaa ñaan yàlla dund ba ci kanam kanam <laughs> donc dernier mot moom wax dëgg yàlla Asiba du ma ko génne xanaa may tàggu mbokk internet yi rek. Uh-huh. di leen ñaanal di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam. Uh-huh. lépp luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom nangu ci barke Serigne Touba Mbacke ci barke Serigne Saliou Mbacke Khadim Rasoul mi nga xamante ni moom moo woote màggal donc ñu ngi jéggalu bu fekkee wax nañ fi loo xamante ni euh, waxuwul ñu ngi tub bu baax. Uh-huh. Euh, bu fekkee wax nañ ci lu jub nag suñu boroom la waaye di laat suñu xarit suñu frère mm-hmm. ak jarbaatam bi di Waly Aziz mi nga xam ne denc nañ ko tey mm-hmm. yàlla yërëm ko xare ko aljana woyofal suuf si kawam vraiment dinañ wéet trop nag mm-hmm. parce que Aziz bokkoon na ci nit yoo xamante ne dañuy dina sama stress wallahi lazim des fois damay am nu ma mel mais bu ma ko déggee wala bu ma audiowee rek wallahi bu ma audiowee ne li may njëkk a def mooy def may mbalak xas mais su ma déglee audio rek damay ree ba sonn waaw donc image yooyu bari day ñëwaat sama diggante ak moom depuis boobu moo tax c'est très compliqué c'est très compliqué mais yàlla moom moo xool lu ko neex mu def ko ci jaamam waaw danañ rafet njootu ci moom Aziz nit ku baax dem na barke Serigne Saliou Mbacké nit ku baax koo xam ne dafa nëbbatu sénégalais yi ba dem mm-hmm. nit bu sincère te bokk na ci ay qualité yi ma gën a neex Aziz dafa am kóllëre mën a téye boo dee xool ñi muy àndal ñëpp même ci showbiz bi am na si ñoo xamante ni maanaam seen siw sax demul noonu mais da leen a bëgg xeetu bëgg goo xam ne ba buñ xewlee da ci da ci da ciy teg ba kanam la dernière fois grand théâtre Pama bi mhm. ci kaw seen bi la nekkoon di fecc mais bi ma gisee may cadré wallaahi dafa génn ci chorégraphie bi ñëw ba ci man di di di di di topp sama champ de vision ni muy filmer mhm. di ma di ma di ma ci mbalagee maanaam moom dafa bëgg nit dafa fonk nitam te fu mu taxaw dalay dalay tiitaroo mm-hmm. donc ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xaaree ko aljana te ñi def lii yàlla nit ñu nit nit nit leen mm-hmm. ñu ñu ñu ñu def li nga xamante ne moom la yoon war a def ci ñoom parce que li ñu def ñaaw na li ñu def bon na li ñu def yées na lii a gën a lii lu bon la ñu def mm-hmm. lii nag nga mën a defee sax di di noyyi wala di dund wala di nelaw man ba tey daf ma tracassé te j'en profite aussi pour wax Euh, li liñ naan wax na ko moo tax ñu rey ko mm-hmm. man kon nañ ma préparer parce que man dama koy wax peine de dañ ko war a appliquer ci réew mi ku rey dañ la war a rey je le dis je le confirme et je le mm-hmm. rey dañ la war a rey parce que rey bi si dëkk bi c'est trop dafa yomb dafa bari mm-hmm. nit boo xamante ni yow yaay sa yaakaaru famille di xale di liggéey ñu yàqal la sa avenir nii ci lan ci caaxaan donc ku rey dañ la war a rey rey yi nag comme ni ko fareel waxee démb circonstances yi bari na ndax nit dina dawal te du ko tay rey nit mhm. et mais rey nit tay ko comme genre kaawu Aziz yi ak yi yooyu laa war a wax dañ ko war a appliquer ku ko def ñu taaj la ci pénc def la lu bon bala ñu laa rey sax mhm. parce que yàlla bi muy bind jaamam yi du pour ñu jël leen di leen rey di leen reddi donc ñaaw na trop ña ngi koy dénoncé bu baax te di wax autorité yi ñu jël ci ay mesures idoines mhm. waaw vraiment loolu laa amoon pour wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp un bon magal merci beaucoup